sëriñ Massamba Mbacke Serigne Massamba Mbacke ñu gën koo xam ci borom ñetti kaala yi mi ngi gënee àdduna ca dëkk bi ñuy wax Patar nekk ci wetu dëkk bii di Njaañ di barab boo xam ne la Lat Diop mu nekkoon dameelu Kajoor moo ko sancaloon way juróom ci jamono bi mu nekkee kër Ahmadou Yàlla mu gënee àdduna nag bisub alxamis ñaar fukki fa nak juróom ñaax ci weeru Sambaan ci atum 1299 am nañu wax sax ne 1300 ci gàddaay gi dëppook alxamis le 14 juillet 1882 way juróom bu góor Cheikh Anta Salim Mbacké di waajuru ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ak ku ñuy wax soxna Aysatu Diop am na ñeent ñu mu bokkal soxna Aysatu Diop muy ku ñuy wax Serigne Amsatou Lo bu Ngaabu ak Serigne Ibrahima Lo ak Serigne Mouhamadou Lo Issa ak Serigne Abdou Karim Lo moom nag bi muy gane àdduna fekk na waajuram bu góor génn àddina lu tollook juróom benn weer jàpp juróom ñaar moom nag mooy caatum Maam Mor Anta Salim wax nañ ne Serigne Touba mi magam moo ko lépp lu ñuy defal ku gane àddina àddina moo ko wutal itam aw tur mu tuddee ko maamam nuy wax sëriñ Masamba Mbàkke Anta Ceego muy waajuru soxna Aysatu muy waajuru sëriñ Masamba sëriñ Masamba Anta Ceego mi nag mi ñu ko tuddee sëriñub daara la woon nekkoon ci daaray alxuraanul karim gi nekkoon kokki jàngal na sax kii di sëriñ Maamo Anta Sali Mbàkke ak sëriñ bu soobee loolu sabab na li ëpp ci njabootu ko sëriñ Maamo Anta Sali gi ñu ko jàngal la leen tuddee loolu tax na sëriñ bi dab bëgg-bëggam tudde ko sëriñam boobu am njàngam alxuraanam nag bi mu matee dal jàng Serigne Touba moo ko dal ginnaaw bi nag la ko jox kii di Serigne Dame Abdourahmane Lo fa la jàngee ba mokkal ci fukki atam la daal di bind kaamil bu rafet lool bokk na ci ñi dàq bind ci yoonu murit ba tey Seyxul Xadim moo ko tàmbalil njàngum xam-xam jox ko maam Ceerno Birahim Faati Mbàkke borom Daaru Muxti mu jàngal ko fànn yu bari ginnaaw bi Serigne Touba boole ko ak Serigne Mbàkke Buso mu jàngal ko lu mel ni ilmu bayaan ak arut ak mantix ak usul ak ilmu nujum ak yeneen yu bari bi Serigne bi nekkee gànnaar itam daana fa gëstu bu baax ci naari gànnaar yi di ay boroomi xam-xam yi daan ñëw ci sëriñ bi ba géeju ci fànn yu bari ci wàllu xam-xam kon moom ku bari woon xam-xam la moom nag bi sëriñ bi di dem ci géej gi ci loxo yi sëriñ daam abdourahman loo la nekkoon ba ni sëriñ bi ñibbisee bàyyee ci géej gi gannaaw bi bi sëriñ bi di dem gànnaar itam yóbbaale woon na ko moom sëriñ ma sàmba ba tey foofee di gànnaar sëriñ ma Masamba wéyaloon na fa njàngum arab ba géeju ci loolu ba tey seex bi ñu sëriñ Aliou Seck Wanar bi sëriñ bi sëriñ Masamba la digaloon mu gàttandu ko ak jébbaloom nag ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ginnaaw gànnaar 1907 ci yéen Jolof ci yéen googu nag fa leen sëriñ bi wooloo woon moom sëriñ Masamba Mbacke ak sëriñ Fallou ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ak sëriñ Mor Roxee Bousso sëriñ bi di leen xamal ne aw ma rakk sëriñ Masamba Mbacke xam ne moom lay waxal mu ne aw ma jarbaat sëriñ Mor bu soo xam ne moom lay waxal mu ne aw ma doom sëriñ Fallou ak Cheikh Mouhamadou Moustapha xam ne ñoo ko moom mu ne leen li fi liggéey moo ko def lu sa moroom am nga am ko ca booba nag ñoom ñeent ci lañ jébbaloo ci Serigne Touba Xaadimu Rasul doon ay murid saadix ñu nekk ci yéen di fa liggéey comme ni ko taalibéy di defee ba ni fa Serigne ba bàyyeekoo ci atum 1912 ñëw njaareem booba Serigne bi Serigne Massamba àndoon na fa ak Serigne bi lu tollook at ginnaaw bi la ko Serigne bi wone ko demal Touba nga bokk ca ma fa nekkal bi mu ñëwee di jëfee ndigali Serigne Touba Xaadimu Rasul yi waaye tamit di maytu ay tereem gannaaw bi tam Serigne bi woluwaat na boole ko sanc loo ko dëkk bi ñuy wax daarul karim waaye foofu la fa ma Masamba daan nekk bariwut li ko waral nag mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ Touba daan na ko liggéeyloo Touba liggéey bi nak moo doonoon li ëpp ci xasida yi sëriñ Touba daan bind sëriñ Masamba bokkoon na ci ñi ko daan maas daan ko settantal laata taalibe yi di ci mën a jot ndax sëriñ Touba wax nañ ne daana bind waaye daawul maas te mag ñu bari bu ñu mësaan a jot mbindum sëriñ bi daawuñu ci am sago dañ ko waaye juróom-ñetti loolu sëriñ bi defaloon na ko ci ak dal ba mag ñi dañ naan sëriñ bi moo bind waaye Masamba moo maas digganteem ak sëriñ Touba Xaadimu Rasul moom sëriñ Masamba nag ku taxaw woon ak sëriñ Touba Xaadimu Rasul la ba tax na mag la ko defoon ndax moom sëriñ Touba moo ko defal lépp lu waajur di defal doomam ba tey sëriñ bi daana ko bind ay leetar di ko ci dénk ay dénkaane yu am solo bokk na ci leetar yii mas na koy wax ne ko Masamba del ànd ak koo xam ne sàgganut del ànd ak koo xool bi ak ragal yàlla nekku ci te nga fonk naa fi la guddi itam ndaxte aaday nit ku baax la ku def lu baax am lu baax ne ko ku la mën di woo itam balaa nga koy wujj na nga xool ba xam njariñu sunu borom ma nga ca wala déet mu ne ko itam ku la woo ci aw yiw na nga ko wuyu ku la woo ci laneen na nga ko tànxamlu te itam Serigne Touba Xaadimu Rasul bind na ko yeneen leetar yu takku moom ma Massamba Mbacké nag ku bëri woon xam-xam la ngir fu mu jaar wàllum jàng ba tax na mu taalif ay xasida yu takkoo takku ñu gën ci ràññee lii di ma mawaaxibul xadim am na ganeen itam gu mu tënkee Ahmadu Bamba moo Moodu Mbàkke ak yeneen ak yeneen ci ay xasida moom Sëriñ sàmba nag ba tey ay way yu bari daana ko def digganteem ak seex yi ba tey moom Sëriñ Masamba Mbàkke mag ñu bari amoon nañ ak ñoom relation ci yoonu murit ndax ku mel ni Sëriñ Abdou Karim ture keroog bi Sëriñ ma sàmba di sanc Daaru Karim àndoon na fa ak ku ñuy wax Sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa ba def fa ay way yu yéeme yoon wi tudde nañu ko doom sëriñ Fallou Mbacke defoon na ci moom ay way yu yéeme kii di sëriñ Mawlaay Bousso itam fonkoon sëriñ Massamba Mbacke la ndax way na ko ay way yu bëri ba tey ki nga xam rek mooy sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana bind na ci moom ak Cheikh Ibrahima Diop Almachari Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke daanaka kenn mënu leen woon a xàmmee ndax diirub muy nekk xalifa moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Massamba mi ngi woon ci ginnaawam di ko jàppale ñoom ñaar ay wëllëre leen woon ba ci sax làquk sëriñ Massamba Mbacke Cheikh Samba Mbacke mii de góor la ndaxte bisub tey bii man la waroon a doon mu doonoon ku mag ñi bàyyi xel ngir li mu doonoon caatum Serigne Mame Mor Anta Saly Mbacke mu wëy nag di nekk Touba ci ndigal li ko fi Serigne Touba dëxaloon ba ni Serigne Touba wàcce ab liggéey ci atum 1927 bi ñuy andi Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Massamba Mbacke bokk ci woon mi ngi woon Touba ci ginnaaw doomam jooju di Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Massamba Mbacke nag ku ñema woon joxe la daana togg lu bari di ko joxe ne xanaa kii waa kër ma Massamba la dafa amoon benn bis kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke Kajoor dafa am mag ñu ñëwoon jaareem di wax sëriñ bi ne ko moom soxna ay satu Mbàkke de ku mën a togg di joxe sëriñ bi na leen togg yi joxe de dafa baax ndax man mii sax dama koy def kuy togg yi joxe doo ñàkk te doo wéet loolu nak bi mu koy wax sëriñ Mouhamadou Moustapha ak seen ma Massamba Mbàkke ña nga fa woon bi sëriñ Massamba déggee wax jooju nak la tàmbali lu mu am di ko togg di joxe ngir waxe sëriñ Touba jooju bëgg am la sëriñ bi wax ne moo ci nekk ci tuyaaba moom sëriñ Masamba nag daan fent la maanaam ku daan créer la ba tax na lii di njàngum kuréelu xasida li ci ëpp ak njabootam ñoo ko sos muy air yi nga xam ne moo xew léegi moom sëriñ Masamba Mbàkke nag bari na lool air yu mu sos ndax amoon na kuréel gu mag ci jamonoy sëriñ bi daana ko jàngale lu mel ni laylatul xadar ak gàmm ñu ràññee ci sëriñ Ibrahima Fall booba sëriñ Masamba nag nii la nekkee woon di woy di nekk taalibe bépp sëriñ Touba Xaadimu Rasul di ci magam ju tedd joojee nga xam ne mooy sëriñ Mamour Anta Sali nekk ci loole ba xëy wuy ji suñu boroom bisub alxamis juróom-ñeenti fan ci weeru rajab ci atum 1361 ci gàddaay gi dëppoo alxamis le 23 juillet 1942 ci hôpital régional bu Kaolack ñu jëlee ko Kaolack indi ko Touba ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké nag moo ko taxawu moo ko jullee Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké séddeel ko lu am solo wax ne ku sa baay wax ne baay ma sàmba mii de mooy gor ndax lii ko dal man mii la waroon a dal ndax tukkeem bii maay ki ko waroon a def wala demam gii maay ki ko waroon a dem te moom moo ma mujj demal Cheikh Mouhamadou Moustapha dolli ci ne Cheikhul Khadim di sa waajur yaa ngi soog a ñàkk waajur kon Serigne Massamba Mbacke borom ñetti kaala ya yal na sunu borom yokk ay leeram te tas ñu ci bàkkeem leeram te tas